li ci def seen alal seen xam-xam seen doole ak seen jot guddi ak bëccëg maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu militant yi fi daje yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi nuyu itam nga xam ne dañ leen a invité wax ji du ci gudd ñaari tomb rek ci laa bëgg a waxtaan tomb bu njëkk bi mooy dañu ne élection locale gox goxam waaye jàpp naa ne war na noo fexe ba sunu mbokk yi nekk bitim réew te ñu naan leen diaspora di français war nañu fexe ba ñooñu nekk ci xol li ñuy def ci liggéey diaspora Sénégal suñu mbokk yi nga xam ne faj buumi gàcce dog buumi gàcce ñoo tax ñu dem bitim réew di fa teewoo guddi ak bëccëg ñooñu dañu leen a war ñu nekk ci xolu mbir mi ndax gën gaa néew dinañu dugal junni milliards ak juróomi téeméeri milliards ci xaalis fii ci koom-koomu Sénégal mu ne kon ñooñu am nañu yetam fa ñu ne ay relation yu tax ñu mën a boolee gox-goxaat yi ak gox-goxaat ya nekk ci réew yooyee ba ñu mën a am ay opération yoo xam ne dina amal njëriñ Sénégal kon jàpp naa ne tomb bu mooy lu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax diaspora li ci des mooy bu ñu falee maire naka la war a mel est maire dafa war a mel ni maire Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ne. jaay nañu ci suuf ay téeméeri téeméeri téeméeri junni hectare ci suufu Sénégal est que maire noonu la war a mel est que maire dafa war a mel ni ku ñuy jox fonds de dotation nga détourné ko est maire dafa war a def suñ la joxee fonds de concours nga détourné ko defe naa ne ñun suñu taxawaay mooy fexe ba loolu tànk lii parce que Sénégal. li jëm ci moom mooy jëlee fi li fi ne waaye nag li fekk ñu fa yegg war ba gox goxaat yi ñu jël ko bu ko defee ñu suuf yi ñuy jaay dakkal fonds de dotation yi ñuy détourné dakkal fonds de concours yi ñuy njëkk. dina ko ci am solo bàyyi ko ci gërëm